amna lo wara té ak lo wara bay li nga wara bay moy mooy lu lor li nga wara a moy lu gën ci yow mengo ak li say wajur di xaar ci yow su dee jeune nga euh, mais aussi su dee borom kër nga wala soxna bu sey nga nga xol li gën ci sa wergu yaram dañ wax ni euh, doomu adama dafa wara am doom su dee mu ngi ci sëy jigéen bu nekk ci buumu sëy dafa war a am doom waaye na ko def ci anam yoo xam ni dana mën a surveiller wérgu yaramam du ko lor ci wérgu yaramam loolu du am solo la du lor njaboot bi ci seen wérgu yaram du indil njaboot bi benn gàllankoor loolu mooy tax euh, ñu am ay famille stable ay famille sécurisée loolu la ñuy bëgg partager ko tey euh, depuis ñetti at ñu ngi ànd ak suñuy partenaire ñi ñu leen di woowee TCI ñu déroulé programme boo xam ni ah programme bi ñëpp gis nañu njëriñam ci ndaw ñi ñu koy yeesalaat ne nañu fexe ba ndaw yi ñu tàggat former leen jox leen ay xalaat yu ñu mën a wisaare tasaare ko ci seeni moromu ndaw xalaat yooyu mooy lan mooy ndaw dafa war a sàmm boppam ndaw dafa war a xam ni sexualité naam yàlla daf ko def ci ñun waaye dafa am foo at age boo toll rek dafa am noo mën a ko war a comporté wu soo comporté wu lu mbéngowul ak sa âge soo moytul di si am lu la ci metti donc comportement responsable ci wàllu sexualité mu ngi nekk di am comportement toujours bi méngoo ak sa age di ànd ak loolu loolu mooy tax nga dem ba màggat te doo am lenn loo rëccu euh, ci sa wàllu sexualité muy muy ci ëmb su xale bu jigéen nga walla ëmbal su xale bu góor nga walla feebar mooy xam mooy xale bu góor walla xale bu jigéen loolu loolu yëpp lañ doon waxtaan ak ñoom jox leen message di yaakaar di ci ñoom wóolu leen pour message que nous lancé comme le maire dit, euh, campagne c'est la campagne je choisis je choisis la planification familiale parce que le projet est lié à planification familiale mais en même temps aussi santé de la reproduction des adolescents et jeunes. Les nak tay dañuy lancer campagne bi nga xamantene des dañuy def ay au niveau des structures de santé au niveau des centres de santé et les postes de santé de Binjana, Les campagne ont nak tay pour lancer pour les journées d'offres. chaque mois on organise des journées d'offres gratuites au niveau des postes de santé et au niveau des centres de santé pour permettre population populations, bi nga xamantene peut-être amuñu won ay pour mëna pour fay ticket jënd produit yi ak yëpp pour ñu ñëw permettre leen pour que ñoom tey ñu ñëw bénéficier wu ci loolu loolu moo tax surtout loolu lépp nag day dugg ci biir aar euh, euh, femmes yi ak jeunes yi ci mortalité maternelle ak euh, infantile yi mën a am waaw dañ ko fas yéene yaatal parce que boo gisee projet bi projet bi mu ngi nekk ci commune Bignona mooy mais day laal Euh, district bi Bignona bi yépp même les autres communes yi nga xamante euh, comme ay Suel yeneen communes Sindian ak yoy noonu yoy yooyu yëpp tamit dañuy bénéficier wu ci projet bi so xolé tamit boñ démé Ziguinchor on est dans la commune de Ziguinchor mais le district sanitaire de Ziguinchor commune yi mu euh, ëmb yépp ñom tamit ñu ngi ci biir projet bi ñu ngi tamit Thionkesil ñu ngi tamit osuy yoy noonu yépp mais projet bi yamul tay ci campagne bi rek campagne bi mom benn programme la bu nekk ci biir projet bi mais il y a d'autres projet avec les jeunes ak yoy noonu yep yoy yep ñu ngi si biir léegi nak bo gisee li tax ñu def ko tamit yamul ci journée d'offre activités def au niveau des lycées mom la wax la médiation scolaire des leçons de vie yo a des prof SVT yi ak profs économie familiale ñom ñokoy déroulé au niveau des lycées Il y a aussi euh, les journées d'offre gratuites mais aussi sage-femme tamit amna yenen approche yo xamantene comme ISBC bi ak euh, planification familiale du postpartum yoy yep dañ leen dañ koy defaale ci biir programme Marambila po. lépp dal ngir ar yaay ak dom ak les jeunes les ados et jeunes à partir de 15 à 49 ans ñooñu ñëpp dañ leen laal ci biir programme bi nga xamante moy mooy programme mais bëggoon naa ajouter tamit programme Tisyaay boko ko mairie bi ci bopam mom moy engagé wu bo gisee tay li tax ñu ñëw ko fi mairie parce que maire bi mom moy engagé wu pour wax né man dama bëgg liggéey ak projet bi ba paré engagement bobu du yam ci engagement bobu kessé day joxé tamit xaalisam day joxé xaalisam l'année dernière le maire avait donné 4 millions cette année-ci il s'est engagé pour 5 millions loolu pour ñu jël loolu projet bi tamit pour compléter pour que l'activité yi gën a dox ci biir commune am. waaw dañ koy accueillir ak mbégte ndaxte dafa ñëw rek doon lekku ci suñu parce que avant ñu ngi ko doon def mais ñom dañoo ñëw gën ñoo gën ñoo dooleel pour ñu gëna mëna taxawal liggéey bobu noonu comme ni la ko waxé légui ni rek euh, liggéey bi. ci fànn bu bëri lay lay lay kii ci biir hôpital bi parce que léegi ñoom ñoo indi daan nañ ko def mais dañ ñoo doole ci xel boobu noonu que ne nit ak lu ko mënti yóbbu ci biir hôpital war naa mën a euh, fajaale soxlam boobu ci bu fekkee ne dafa soxla planning familial wala faj fajum parce que du planning kese jël en charge IST yaa ngi ci biir donc euh, su bëggee même bu doon dafa yóbbu doomam mu vacciné pour bu amee problème mu vac euh, kii euh, planification familiale mën nañ ko détecter foofu ñu orienté ko fi ñuy defee planning mu dem defi faj soxlaam te kenn du kenn du ci ci sutura. waaw léegi nu mu tuddati sax comme ni mu la ko waxee sànq aussi dañoo bëgg organiser des jours fixes des jours yoo xamante ne c'est fixe et c'est gratuit. pour nga xam permettre ñi nga xamante ne euh, amuñu doole peut-être wala bëgg nañ planning parce que bëri na ci am na ñoo xam dañuy bëgg mais duñu xam fan la ñuy aw pour def moo tax ñu awale ko ci fépp ci service yi. boo indee sa doom pour mu faju wala nga indi sa euh, doom pour mu def vaccination wala yow sa bopp nga ñëw consulter consulter wu pour autre chose mais ñu waxtaan ak yow ci mbirum planning fekk yow amoon nga besoin boobu ñu wax la fa nga koy defi waaw bi nga xam ñi nga xamante ne gaaw ñu ñëw hôpital tamit mën nañ koo jël information à travers les relais

vous devez affronter toutes les situations pour que message soit fait leen jox